kenn mënul wax ci ndar géej te sa xel demul ci góor gu sell gi boroom xam-xam bu mag bi ndem ci yàlla Golbert jañ bàyyi ko fi le 3 avril ci atum mu nekkoon patrimoine culturel bu mag lool bu bëggoon lool itam dëkkam bi di Saint-Louis tey jii Golbert Diagne bu na turu ndar fu ne fi ci Sénégal ak ci bitim réew jàngal na lu bare rawatina mooy jël armeel liggéey ko moom gëmoon na foofu marmeel googu fa dana fa tëdd ndax xam nga jël sa xaalis tabax ci armeel ni kii fii su ma génnee nan ma fi denc ñi ko def ci réew mi barewul Golbert def na ko loolu it jàngale la mooy wane ni kullu nafsin rek saay xatil mawt amul bakkan buy dund te doo dee te moom gëmoon na ni bis dana ñëw foofu ci ci marmi yàlla nu tëral ko fa di ko ñaanal bu baax yal na ko yàlla xaraa jana xaraa jana sunu way dawlu yëpp di ñaan yàlla liñ fi bàyyi di njaboot yàlla na ci yàlla teg loxoom waaye di ko ñaanal bu baax a baax it e, li nga xam ni moom la ñu ci moom yàlla na ko yàlla barkeel. waaw wéetal nañu Golbert man sama xarita woon sama xarita woon fu masuma gis te kaful man te ndar yëpp nag noonu la meloon ñoom su gisee procureur da ngaa yaakaar ni golbeer kii parce que ñëpp ko bëggoon amul woon amul woon ku nekk ndar te bëggoo Golbert noonu la ko yàlla binde woon kaf ree waxtaan ak nit ñi dimbali nit ñi gran place bi ma daan toog ak moom man doo toog ak moom 30 minutes te te nit fekk ko fa déy ko mu génn ci loxom dugal loxom ci biir poosam li mu am mu bokk yow xol bi dara nekk ci man nax rayanteeg yow léegi nii nii nii nii nii nii bu suba su tasanteeg yow mu mel la du moom te waxam yëpp nag kenn mësul kenn mësul bëgg ku laar ndar ndar moom drapeau bi dafa ni man dama kaa téye rek ci kattanu yàlla waaye kenn du touché nar lu laal ndar lu mu mënti doon su dee kan moo ci jëkk taxaw Golbert lay doon yu mel noonu nag mën na ko fàtte ci moom waaye ku baax yàlla moo la gën baax yàlla na ko yàlla teeru ci àjjanaam yi kawe. naam tey nekkatu fi waaye moom góor si bàyyi na fi lu bari ay jàngale ay yeete yi nga xamante ni ndawi ndar tey jii mën nañ see roy bu baax a baax. dañuy jéem rek waaye jot Golbert yombul ndax li ma amoon don la kenn ku ne dafa am loo jël ci moom. tey wax naa la ni am na ñoo xam ni ci rajo bii la ñu nekkee commencé ba tey ji ay patron wu rajo la ñu wala patron wu télévision am na ñoo xam ne tey ci rajoom la ñu jaar tey ubbi nañu école yu mag am na ñoo xam ne tey ci rajoom la ñu jaar noo ngi ci yeneen rajo ñu leen di dégg wala tey noo ngi extérieur di wane li leen fi Golbert jàngaloon loolu dañuy jéem ñun ñëpp rek kenn ku ne dafa am loo jël ci moom waaye pour mel na Golbert ni mu meloon du yomb yàlla nag lu ne mën na ko waaye du gaaw du yomb daanu jëm nag def suñu kéemtalaay kàttan pour li mu fi amee nu téye ko pour mu bañ réer waaye mel na golbeer Diagne du gaaw. moom gox si ñu sikkal waxtaan wi tey jàpp na ni ndar dëkkam dootul amati doom bu mel ni Golbert jaañ bi nga xamante ni xeexal na ndar fu ne ci àddina. yàlla na ko yàlla teeru ci àjjanaam yu kawe ya lu fi waroon def ci lu baax ci ndar def na ko fi ku mu fi waroon jàngal jàngal na la ku mu fi waroon dimbali dimbali na la ku mu ànd waroon ànd ak yow ci lu baax ci dëkk bi def na ko dem na ba ku tudd ndar tudd Golbert loolu nag bëgg bi mu ndar moo ko waral am na lum mu fi bàyyi mooy dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën moom moo ko daan wax Golbert nag Euh, euh, ndar yëpp amel nañ ko njukkal waaye ñu mel na man ñoo ci raw ndax bi yàlla dimbalee muy liggéey ba war retraité nga xam ni ci wàllu sport ci ndar def ci joué rôle bu mag waxuma nag ci fi mu nekkoon ci RTS ci ORTS ba ci RTS liggéey bu mag bu mu fi liggéey ci ndar mu ni man lii ma lii nekk lii yàlla def ci man muy xam-xam ak sama expérience du ma dem rek toog damay ñëw ubbi rajo rajo boo xam ni dama koy tuddee rajo Ndar ku ne xam na ne jamono yi bi ubbi rajo boo rajo privé barewul ci réew mi te ku ko mas xalaat ubbi rajo yaa ngi naan naa ko yóbbu Ndakaaru ndax Ndakaaru moo gën dox waaye Golbert def ko fii ci Ndar ubbi ko ni xale bu bëgg jàng rajo technique wala wax walla lu mu mënti doon ñëwal ma ànd ak yow nu ànd jàppalante te yàlla tax tey jii am na ñoo xam ni ñoo ngi leen di tudd ci réew mi ci rajo boobu lañu jaar man mii ci laa bokk su ma mënee wax tey wala ngeen mën ñëw ndar di ma jël may wax walla nit ñi di ma dégg dans le monde entier moom la Alaaji Golbert te nit as gor sëkk jëf bàyyiwu fi benn gàcce nag xanaa naqar naqar bi it dañ koy teg ci lu yàlla dogal kenn mënu ci dara xàmmeewul woon doomam ak doomu keneen xàmmeewul woon soxlaam ak soxla keneen lépp lu doomu ndar bëgg lépp lu ndar bëgg Golbert taxaw na ci ba korog bi ñu koy yóbbu mermi yàlla waaye nag bisam boobu it suñ jellu si woon ba gis naka ndar taxawoo ci jamono bu metti ndax si biir feebar bi la waaye ndar wan na ko ni ko ñun ànd bi nu àndoon àndu yàlla la yàlla na yàlla fay lépp lu mu sonnoon ci ndar njaboot gi fi bàyyi yàlla ci yàlla teg loxoom. vide bi mu fi bàyyi mooy li ko ndar gënoon bàyyi xel mooy cérémonie bu mas am bu mag su masee sol costume walla mu sol grand mbubb su Sénégal taxawee addina bi daje. su lakkee tubaab nga mu neex su làkkee wolof mu neex te it dafa xamoon li mu doon wax maa ngi fàttali rek barki demb bokk na ci cérémonie yu mujj korog ba fi président Macron ñëwee ànd ak président Macky sal te nu ñëw ci woo boobu nga xam ni moom la la ministre maire Mansour Faye woowoon pour nu ñëw ci boor géej gi korog fii ci place Faidherbe bi ci xolu Ndar korog ak grand mbubb ba macha allah. bi mu ñëwee làkk ci kanamu Macron kuy doomu Ndar sigg nga ndax Golbert yàlla def ko mayoon lim ko mayoon don la ci moom su nit ñi masee dajee rek su waxee ñëpp kontaan rawatina nag am na émission bu am solo bu mu daan def nu ko daan wooye Ndar ràññ benn émission la bu mu daan def entre euh, midi 12h ba 13h mi ngi ko daan def ci rajo Teranga FM su heure boobu mos a jot soo duggee ci marché yi ci kër yi ci magasin yi foo jaar dañu koy déglu ndax tawatu ndar rek la daan wax lampe bu tàkkul ku am ordonnance amuloo loo ko jënde koñ bu am mbalit ku néew doole ku war jàppale loolu rek la nekk woon ci ndar ba nit ñi sax daan ko wax naan ka Golbert meeru ndar dégg daan na dégg loolu waaye nit la goo xam ni wax dëgg yàlla su dellu ci ndar tey lu mu lebaloon ci lu baax ci ndar kaamil bii mu fi bay tey nga xam ni moo ko daan def diggante marmiyal ak ceem ak caaka njaay ni nit ñi ñëwee ci gannaawam wan nañu ko ni que lépp lu mu defoon ci lu baax waru ko rëcc. tey nekkatu fii waaye doon na l'absent le plus présent dans les cœurs des Sélousiens ndaxte tey doomu ndar yépp ñu ngi fàttaliku anakan kan mooy Golbert Diagne waaye itam ñi ngi koy ñaanal fale mu nekk yal na ko gënal fi mu jógee tey jii